Ah bon? Et je pense que le débat, ce débat-là doit a jusqu'à présent, il y a de petits Touabs qui pensent que nous, États africains, nous ne sommes rien du tout et qui peuvent nous maltraiter comme ils ah Et cela est inacceptable. C'est totalement inacceptable au point que xam nga gis sax ay sénégalais yu topp ci kooku mën a déglu ay waxu caaxaan yi muy wax. waxu caaxaan mooy ñàkk respecté suñu bopp. mooy ñàkk respecté suñu bopp nga foog ne lii avocat africain ñeme woon na ko def ay réew ay ñëw réew tubaab nga foog ne fii maître Ciré Clédor Ly ou bien maître Seydou Diagne mën nañ taxaw fi Sénégal wax ci lii ci Macron ou bien ci keneen il faut il faut quand même que nous africains qu'on se respecte nous-mêmes si on veut respecter être quelque chose sur l'échiquier international il faut qu'on se respecte nous-mêmes xam nga man soo posé wu doon question man du ma ci mas a wax ci kooku parce que nit ku tekkiwul dara. mais pourquoi vous voulez pas en parler nit ku tekkiwul dara parce que sama nit ku mais sama nee na bu fekkee ne. ku ku ku picc bu tëb rek bu nga tontu ko di waxee moom mais ça on peut même être ridicule vous savez on quand on pose des actes d'État on répond à la législation nationale comme internationale mais on on on, on répond aussi devant sa conscience et moi je ne pense pas que fii qu'il y ait des actes que demain qui pouvaient être répréhensibles vis-à-vis de notre conscience et vis-à-vis de des lois et règlements nationaux comme mais est-ce que soulever wul ay ay choses yoo xamante ne peut-être. de petits avocats sans aucune. Euh, vous pensez que c'est un petit avocat mais qui a quand même parlé euh, de jël ay vidéo yoo xamante ne euh, gisoon nañ ko fii ci mois de juin ci ay manifestation police nationale. génne ko wane vidéo yooyu. xam nga man. une personne quand même. vidéo yi nga am vidéo yi nga vidéo yi nga am. Mhm. gis vidéo lu ci nekk nañ ko ci dugal. man j'attends le chef de l'État a annoncé une enquête et que les responsabilités soient situées à tous les niveaux. mais est-ce que le chef de l'État a dit mais am moom. parce que mais yow nee na yow sa bopp en mais nee na bàyyi ma àggale mais bàyyi ma àggale ba pare. nee yow sa bopp. lu vidéo lu ñu da nga fekkee teew. nit ku ne man yor naa almet bu mën a taal dëkk bi nit ku ne nañ dem combat bi c'est le combat mortel nit ku ne. Euh, ñi ni xale yi dee leen ku ci dee c'est ay juraat qu'est-ce qui est plus violent que ça avocat boobu déggu loolu yow gisoo ko déggoo ko xam nga man la ñuy ay vidéo ko nit mën na créer lu nekk ci vidéo waaye lii moo gën a garaaw lii nga xam ne ay kaddu yu leer nañ la nga jël ay xale bari barricade sa koñ à Ziguinchor nga ne kenn du fi dugg foo ko mos a gisee ci ab réew y a à tout gis nga réew mi nag duñ ko bàyyi ñu koy fooyee ay tubaab yu ndaw bëgg a jàpp Sénégal ñu taxaw est-ce que loolu état du Sénégal amu ci part de responsabilité parce que bu fekkoon tey jii en 2021 il y a eu quand même plus de plus de 13 morts on parle de 14 morts en 2021 est-ce que su amoon ay enquêtes yoo xamante ne situé nañ les responsabilités xam moor yooyu naka ak nan la demee est-ce que tey dinañ yegg si ba fii. oui bay wax waxu saisinu euh, cour pénale internationale oui oui mais xam nga ay saisinu cour pénale internationale d'abord euh, maître Sidikaba a rendu compte naka naka lay demee. c'est-à-dire procédure xam nga boo xamul procédure bi na ngay def politique du cinéma ak di uttur ci tur Sénégal di uttur ci tur Sénégal loolu bokkul mais tout le monde connaît les procédures et CPI mm. état yi ñooy adhéré. day charte la bu nga xam ne da koy da koy ratifié boo ci boo boo bëggul dem mën nga suba nga ne bokkuma ci kan moo la fa mën a yóbbu donc waa ay waxu caaxaan la nañ ko teg fële mais li am solo lii nga wax il est responsabilité de l' état de clarifier de faire les enquêtes toutes les enquêtes nécessaires pour que toutes les responsabilités soient situées le temps d'une enquête nag dépend de ceux qui font l' enquête loolu tamit bu ñu ci naxante ça prendra le temps qu'il faudra parce que c'est pas c'est pas c'est des vies humaines qui sont en, qui, qui sont en jeu ce sont des vies humaines et ces vies humaines là waruñu koo fooyee waruñu koo nekkee di ko politiquer moi je me rends compte et ce cynisme là qui se développe dans ce pays mhm. il mm -hmm. y a des responsables politiques qui ne sont contents parce qu'ils entendent qu'il y a un mort ah bon c'est extraordinaire c'est-à-dire Comment que ça? la réussite se mesure à l'aune des morts mais, mais, et ça c'est très grave tout le monde a déploré ces morts ouais, mais il y a des partis qui n'ont jamais condamné ce qui s'est passé jamais bon condamné aujourd'hui c'est passé yaa ngi ci réew mi gis nga ay parti d'opposition yoo xam ni comme daan na wuñ ko ba tey fu ñu nekk ni ban amul parti bu. mais xam nga xam nga. tout le monde a eu à condamner condamnation du bout des lèvres dafa am accusation yi tamit il faudrait que ñu ñu koy moytu parce que def naa benn plateau quand j'ai entendu une personne dire que euh, euh, waa APR wala waa waa waa opposition bi ils se réjouissent de ces morts mais loolu comment on peut tenir de tels discours ça rejoint un peu. Euh, mais c'est ce que nous constatons c'est que. vous constatez qu'il y a une partie de l'opposition qui se réjouit. il y a une partie de l'opposition qui à chaque fois qu'il y a mort. mais c'est comme si c'était une victoire et ça c'est inacceptable dans un pays démocratique moo tax ma ne le rôle de l'État, c'est d'aller rechercher mmh. les coupables et les responsables de ce qui s'est passé et de les sanctionner. Mais pourquoi ça tarde ça, Il faut le faire. Pourquoi ça tarde autant bon, maintenant, On nous savez, a parlé de force occulte en 2021, euh, on nous a parlé de force occulte juin bi passé, et, et jusqu'à présent, euh, population, on a l'impression ouais. que force occulte, occulte il n'y a que euh, parti au pouvoir, nous n'y Oui, mais non, force occulte, moi, parfois, dégg-déggu tubaab ñun duñu ay réew tubaab <laughs> dégg-déggu tubaab parfois dafa xaw a jafe ñi ñi dégg naa sax ñuy wax ne force occulte mooy mystique non <laughs> force occulte ci ci jàpp-jàpp mooy li nga xam ne c'est pas de lu nga xam ne lu ñu waroon jàpp ci parti politique nga xam nga parti politique dafa am organisation dafa am ay structure am bu demee nag ba structure yooyu rax leneen nekk ci lu nga xam ne bokkul ak politique bokkul ak conquet démocratique du pouvoir mën nañ ko assimiler à des forces mais loolu yëpp mooy ñi ñu confier enquête bi ñoo war a def seen liggéey en toute transparence et en tout cas pour ce que j'en sais mhm. le président a donné toutes les instructions pour que toutes les clarifications soient apportées pour que Sénégal ñu xam qui est responsable de quoi dans ce qui s'est passé et qu'on ne le fera pas aussi notre démocratie va en souffrir parce que quand même on ne peut pas se permettre dans un pays ñit ñi di reyante jël ay pistolet ñu et vous na ko xale xale yu ci dee mais vous pensez que c'est la revendication politique xale bu 14 ans ou 15 ans qu'on met dans une marche comme ça te na nga xool parce que c'était une manifestation politique am organisée par de portées politique mais biñ ci buñ ci waree jàpp mais responsable politique yi ñoo ci war a jiitu man de ba may fàttaliku man bu ñuy xeex ci PDS buñ jàppoon jàpp nañ Ablaye Wade jàppul jàppoon Ablaye Wade jàpp nañ. Idrissa Seck bu ñu jàppul Idrissa Seck jàpp nañ Ousmane Ngom bu ñu jàppul Ousmane Ngom jàpp nañu Modou Diagne Fada man loolu laa histoire PDS ou bien ñi mais donc dans ces manifestations là ban leader nga gis ñu jàpp ko sur le terrain ah, le premier et le deux juin koo ci gis c'est prendre des jeunes, des enfants et d'en faire de la chair à canon. Oui, mais en 2012, ça, c'est irresponsable. En 2012 aussi, c'était, c'était la même chose. Non, gens se battaient. Ouais, mais malheureusement. il faut, pas aussi, que, mhm. toujours qu'on répète les mêmes erreurs de l'histoire. À un moment, M23, le seul mérite du M23, mhm. c'est qu'en juin ils ont fait reculer le président Ouattara sur un qui n'était même pas partagé dans le fond au PDS. Mhm. C'est-à-dire le fait de, de, dire et qui n'auraient jamais cautionné ce projet. Ça, c'est le mérite du M23. Mais à part ça, bon mérite, bon, bon mérite, bon à la candidature de Wad. Wad s'est bien Le M23, dans son essence, leur candidat préféré, ce n'était pas le président Macky Sall. Ça le, le, candidat, les gens pensaient que ce serait soit Moustapha Niès ou bien euh, le feu Ousmane Tanoudien, à, son, paix son nom. Mais qui a, le peuple sénégalais souverain a choisi quelqu'un qui est issu de la famille libérale. Qui était le président, président Macky C'est ça. Maintenant, on doit tirer les leçons de tout ça pour ne pas mener des combats inutiles, pour ne pas mettre des enfants des jeunes en, comme chair à canon. Parce que si on ne tire pas les leçons de l'histoire, notre démocratie va toujours euh, et, ce qu'on euh, attend aujourd'hui, Ce qu'on attend aujourd'hui de l'État du Sénégal, c'est justement ça, qu'on puisse situer les responsabilités. Ah, parce ça, que, je suis d'accord avec vous. Oui, parce que c'est important. Euh, Nugis, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être, euh, vidéo, ben, ils ont commencé cette, cette vidéo de la police. Euh, Nugis commençait, on, ils nous ont fait peur. Euh, bu ñuy waxee commencé di wax ne que y a eu des gens yoo xamante ne euh, dañuy tirer ci ci manifestants yi mais ce qui a été dommage wala lu def tache d'huile c'est qu'on a vu ces personnes euh, à côté des forces de l'ordre loolu également ouais, mais, mais comme, encore comment... que man je man ces vidéos là je dis euh, moi je me réfère à la vidéo montrée par la police oui justement parce que je considère que la police ne va pas nous montrer des banalités mais toute autre vidéo pour moi je fais attention parce qu'elle peut être source de manipulation. Vous pensez qu'à un montage là ou le... je, je, ne préjuge de rien, j'attends le résultat de l'enquête de la police. Pour moi, à l'heure actuelle, je fais foi à ce que la police a dit, jusqu'à la preuve du contraire. Et, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver ces, ces personnes-là, nous avons armes de guerre, mais, mais, Sénégal, mais, ils sont toujours là, en train de courir. Mais, mais, mais, mais, citoyens lañ. Oui. Kenn xamagul lu nekk ci enquête yi. Ba tey ñu ngi ci biir enquête, ba tey procureur ou bien police génnaguñ ne lii lañ gis, lii lañ jàpp. buñ demee ba loolu la waxtu woowu bu jotee man ak yow nga xam ne ay citoyen normal lañu danañ xam. mais mu fii nii mën a guñ man de xamaguma ci nga xam nag nga xamal man <laughs> kay ngi xaar toujours ñu wan ñu ne que cette ngi nii jàpp nañ leen teg nañ leen loxo c'est ce qu'on ah. attend peut-être mais ak ñi nekk seen ginnaaw parce que am na ñu ah, nekk seen ginnaaw que ce qui s'est passé là <laughs> du xëy rek spontané ça na lu nga xam ne moi je fait partie de ceux qui croient que c'est une suite logique mhm. à toutes les déclarations du, de, de, de, du secteur général de, du président du parti Pastef il y a une des quand, tu dis nga nekk Ziguinchor fële nga ne nañ dem Dakar maa ngi bi et que nous allons déloger le président Macky du palais ça vous l'avez pas entendu mais je me demande aujourd'hui maintenant man nag journaliste Sénégal léegi dégg ma bëgg daal yéen du ngeen du ngeen du keneen koo xamante ne du yoon peut-être on allait lui poser ces questions mais tey su ma la poser ces questions sur. pourquoi vous avez dit que vous allez déloger le président du du palais. qu'est-ce que vous allez me dire. kan moo mës a dégg phrase bu mel noonu c'est-à-dire que nañ dajale. avant 17h avant 17 déedéet dafa déedéet président de la République toujours dafay poser ay conditions. non non mosu ko wax c'est-à-dire que loolu itam dañuy jaxase. bu fekkee président de la République mais condition boobu du am moom parce que c'est un démocrate bu boobaa bi bi conseil constitutionnel décidé ne président Wade est candidat qu'est-ce qu'il a dit à son parti. le droit est dit allons en campagne électorale mais nga wax ni nañ dem Ndakaaru ak nit fu mu mënta nekk nañ dalee Ndakaaru ñu def cooki final et avant 17 heures on déloge le président mais ça c'est méconnaître mais c'est quand même grave que enfin c'est quand même grave ces accusations quand vous dites que peut-être ñoom euh, ñoo nekk derrière tout ça derrière ces hommes mais moi je dis xam nga man je te dis ma ne ça c'est la continuation logique ce qui s'est passé le premier et le 2 juin mhm. c'est la continuation logique c'est la suite logique des déclarations incendiaires yoo xam des hommes politiques l'ont tenu dans ce pays Abdoulaye Wade avait dit moins mhm. avait dit moins mais il a vu ce que li mu ci enduré et pourtant Wade personne ne peut dire ici que

foofu laa xaar journaliste parce que l' analyse c' est vrai aujourd'hui man maa fi nekk. oui mais vous avez aussi vos émissions. Hein. oui bah oui <laughs> vous avez aussi vos, vos vos débats et moi je suis et, et les gens refusent à part que le débat politique de, de, refusent de revenir sur des déclarations fortes des déclarations qui sont de nature à troubler l'ordre public. des déclarations yooyu vous n'avez même pas gens... besoin de vidéo vous l'avez vu. alors euh... pourquoi on, vous, les gens n'ont pas de courage pour dire ça. pour dire quoi que dañ koy condamné mais voilà. ils le font les gens le font tout le temps sur les plateaux. man de man non journaliste laa wax man. <laughs> alors beneen bi mooy euh, ñu Ousmane Sonko a été euh, condamné euh, gis nañ ko. qui a toujours soutenu quand même qu'il n'y a jamais eu viol, qu'il n'y a pas eu viol complot. À la fin, euh, on a vu que dañ ko condamné pour autre chose, corruption de la jeunesse. am ñu wax euh, ne que peut-être euh, l'État est faible parce qu'une personne condamnée quand même ñu ne euh, ba tey mu ngi mu ngi këram jëli wuñ ko peut-être osé wuñ ko arrêter qu'est-ce qui se passe on ne comprend plus euh, cette décision de, de de justice qu'en est-il réellement parce qu'on a entendu le ministre Ismaïla Madior Fall dire que peut-être euh, c'est toujours en cours de rédaction lan moo nekk derrière d'abord da am na lu nga wax balaa ñu may ñëw ci loolu. ne voilà euh, dañ ko waxoon viol. ak mm-hmm. menace disqualifier les mais après ñu ngi ko sanctionné ci leneen. dëgg naa ñu bëri di ko wax. Mm-hmm. Euh, di wax ni sax nekku loon ci ordonnance bu renvoyé au jugement euh, alors que loolu quand même ce clair que mu ngi woon ci ordonnance mais mieux. Mm-hmm. Ndeye Khady Ndiaye bi Adji Sarr di porté plainte porté wu ko woon bu muy porté plainte départ. Sonko rek la porté plainte pourtant Ndeye Khady Ndiaye dugg na ci biir loolu mooy justice. donc justice boo ñëwee ngay jugé ñu ne viol ñu ne euh, juge bi di enquêté sur le viol sur les menaces juge d'instruction bi dem di gis ni gis na ci yeneen moom ci boppam mais daf ko ci dugal c'est pas parce que gis na ko bokkul woon ci plainte bi que daf koy def de côté mais de ce loolu ce serait un déni de justice loolu à ce niveau je pense que c'était un débat de plaisantin bu nga xam ne tout le monde sait <laughs> ce qui s'est passé beneen aspect bi xam nga man euh, wax naa ko départ ne laa man citoyen la li ma xam mooy condamné nañ ko est-ce que notifié nañ ko décision bi xaw ma ci dara naka lañ ko notifié xaw ma ko ci xaw ma ci dara procédure yi aussi yu war a mën est-ce que le juge a parce que juge tamit bu la bu la condamné mhm. bu la joxul mandat de dépôt kenn du la bi lu tax deful mandat dépôt ci ci ci ci salle de tribunal bi c'est à lui et à lui seul qu'il revient de. et vous trouvez benn blocus devant chez lui comme ça. mais vous savez loolu nag. loolu moom man man je suis un administrateur civil. Mm. l'ordre public on n'a pas euh, kenn mënu douter man ak yow ak keneen que l'ordre public au Sénégal n'a pas été troublé et gravement troublé et en matière de l'ordre public il faut prévenir les troubles. et bu demee bu trouble am on demande de rétablir l'ordre public et booy rétablir l'ordre public on te demande d'utiliser tous les moyens pour rétablir l'ordre public parce que l'ordre public est prioritaire mais nit ko nga xam ne kii ñu buñ la nee ah lii bu fi defee lii dana troubler l'ordre public boo ko bàyyee tu es responsable de ce trouble ça l'administration et loolu tamit mais l'État est responsable de tout trouble de l'ordre public te mu xam fu mu a jógee te jëlu ci ay saafara est-ce que entre entre ce qui a été fait et ce qui se passe entre le premier et le 2 juin yow buñ la wax na nga tànn ba ban ngay tànn. man kay j'ai pas tànn. non dama lay laaj rek. man kay aw ma vraiment monsieur le ministre. <laughs> entre li xew nii cité Kër Góor gi ak li xew premier ak 2 juin loolu la ci gënal. benn ah benn gënul la ci. ñu di nii yëpp. amu <laughs> ah, lii laay wax ci journal suñu journal si léegi ñemetuñ. alors. xool euh, da ngay bañ après saaga yi ngay daw. <laughs> mais non. Juan Branco euh, bëggoo ko wax mais quand dafa dafa dafa wax ay accusations yu graves ci Sénégal euh, cent tonnes cent quatre tonnes d'armes logées au palais mais am nga am nga ça c'est non non xam nga comment moi les propos de de de comment il s'appelle d'ailleurs. Juan Branco Juan Branco moi considère que du ma ci dóor sama. il paraît que kenn nelawatul ah. si si si yéen mais non comment ça moi tu moi gis nga moom. moi je qu'il a réussi à vous faire peur. moi je non moi je suis en très grande forme xam nga man franchement moi j'ai même pas envie de parce que man franchement am na man am na lu ma jombal. sama bopp l'effet ce pays ne vous touche pas. am na lu ma jombal sama bopp am na quand même ce pays là. c'est le fruit de notre engagement, le fruit de notre sang. On s'est battu, nos ancêtres se sont battus pour mm. faire ce pays d'abord indépendant. D'abord indépendant, on nos ancêtres se sont battus pour que ce pays soit indépendant. Sorte d'abord de la colonisation, après soit indépendant, que cet État soit là, debout, qu'il soit dans, dans le monde ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, vraiment. c'est pas des avocats à la recherche d'une popularité ou bien d'une autorité qui vont qui vont nous impressionner ça franchement il est trop petit pour ça. très bien alors. Euh, man sax man sax am naa lu ma naqari mooy yow nga xool ma xool ma dama ne kii tiital na leen franchement.